asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne sa ak sa sant di leen ñaanal rek ñuy ñaanal sëriñ bi jàmmi àddina jàmmi àllaaxira yanam ko yàlla boole defal di wax ci turu sunu jëwriñ rek soxna ki ne ak ki toftal ci moom muy soxna Xadi Jaañ yàlla daa def ñu am ngànt tey rek ñëw ñu moo tax ñu nekkal leen fi matuñu ko nag waaye xam naa noonu la ko yàlla dogale ñu ñu jéem a woo rek bokki soxna yépp rek képp kuy soxna daal di jullit ñu ngi lay woo ci suñu bis bi bi nga xamante nii yàllaa ñu ko cërale muy du mawlidu xaadim rasul radiyallahu anhu ñoo ngi woo ñépp rek bàyyiwuñu kenn di ñaan bis bu ñu mas a def rek mu faw rek yàlla na ci biir topp gën ko wax fawxa barakati Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi woo ñëpp rek bàyyiwuñ kenn mboolem kuy bokk ci daayira Kawsara Fall màddina Fall taax kaw ñëpp bàyyiwuñu kenn ñoo ngi woo ñëpp di ñaan rek yàlla defal ci ndami àdduna ak ndami àllaaxira ñoo ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn rawatina waa kuréel làmp Fall nga xamante ni ñoo ànd di liggéeyal sëñ Touba maam Sera Fall ñu ngi leen ci woo woo soxna yëpp daal bàyyiwuñu kenn. ñoo ngi siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp wasalaam aleykum wa rahmatullah